waa ke maam Cheikh Ibrahima Fall maa ngi leen di nuyu te di leen siyaare jiital kilifa yëpp rek di leen jaajëfal si turu njaboot gi yëpp si turu kuréel gi yëpp di leen jaajëfal fal si turu sering bi taxawaay yi nga xam ne taxawaay yu mat sëkk la yéen am ko tey jii eh, léegi rek la ma sëriñ Bassirou Mbacke moom sëriñ ya Abdou Khadir di woo di wane mbégte mu am. ak mbégte mu sëriñ bi am tey ji si tànk yi ñu dox ak kàddu yi ñu jubal yëpp waaw sëriñ bi di eh, nee na sëñ Muntaxa sant na si bu baax xelam dalaat na bu baax a baax a baax waaw ah, ma ne ko loolu rek lañ doon sàkku de xelam dal rek waaw sant ñëpp nag si taxawaay mat na sëkk waaw xanaa nu bañ a bàyyi rek daal maa ngi bëgg su àjjuma gannaaw am na ñu ko annoncé ni ajjuma daañu ko defaat ajjuma ñu ñu defaat nii ñu defoon rek su ko defee nañ ko yaatalaat fépp rek wax ni ajjuma sëriñ bi nee na ni ñu defoon la ñuy defaat rek bu jaree dem ci rajo yi ñu def ko communiqué ne bàyyi Fall yëpp ñu ngi leen di woo ajjuma incha allahu ñu daje kër am Cheikh Fall def nañ defoon su ko defee euh, moom ñii moom euh, li li ñu bëgg du sotti wax naa ko sëñ Basit naa ko Cheikh Thioro jot nañ ko ba tuub na rëccu na jéggalu na waaw waaye euh, moom dem këram lañ naroon waaye gannaaw bi bàyyi ndam faal te ne jot na ko tuub na waaw waaye nag lu tee nag ñu artuwaat leen rek bu baax a baax a baax a baax waaw ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di bëgg si ñëpp waaw yàlla nañu yàgg taxawul liggéey bu Saara Fall bii lii dong la àndandoo rek moo nu mën a may ndam jërëjëf.